ak Sénégal gi ñu bokk kenn ku nekk suñun xam na lan mooy suñu engagement ci politiku Sénégal ndaxte du tey nag ànd bi yàgg na ay at ngi ñu ñu ngi ànd xam ngeen lan la yéene xam ngeen lan la ñu mat xam ngeen lan la ñu ñu àndoon fi nag ci ay xeex yi paase 2012 ba léegi ñu ànd di jóge ki daanu am lu ñu bëgg muy changer régime bi fi nekkoon te duma doy ci di leen gàcce ngaalaamal gàcce ngaalaamal askanu Sénégal parce que yéen la rek yéen ñu gunge bu ñu wootee ngeen wuyu bu ñu taxawee bu ñu tourné gis leen ci suñu ginnaaw ba ñu laajee itam ngeen taxaw samp voteel ñu gunge ñu dooleel ñu sotle ñu ba tey ñu am ndam li kon toujours damay delloowaat ndam li ci yéen di leen gàcce ngaalaamal ndaxte nag coow li bare na mais li ñu def yombul waaye di leen wax ne mbokk yi loolu ñu defoon te daj ko ak yi paase muy bundu muy tolof tolof muy xeex muy dóor muy tëj kaso muy raye muy ñàkk suñuy liggéey muy ñàkk suñuy alal muy façon métital bu nekk waaye ñu taxaw tem ba egg fi ñu jëm mooy fal président de la république bu bees dugal ko ci palais jox ko pouvoir mu mën a décider loolu nag dafa am lu ci manqué li ci manqué mooy jox nañ ko doole jox ko pouvoir jox ko sañ-sañ mu soxla ay kaddu kaddu yoo xamante ne ñooy mën a tënk ay projet de loi ba nga xam ni xalaatam ak yéeneem dina ko mën a mottali loolu mooy lii di ñëw ci suñu kanam muy assemblée nationale ku nekk nag di ci laaj suñu taxawaay lu mu war a doon ñu leen di wax rek taxawaay bi moom mënta doon lu dul taxawaayu ngor mënta doon lu dul taxawaayu kóllëre mënta doon lu taxawaayu continuité ndaxte nag dara mënu fee changé ndax xam nañu li ñu daj xam nañu fi ñu jóge xam nañu lum ñu jaraloon ak njëg giñ ko fay mu njëg lu cher ndax ay bakkan dañu ci kon loolu yëpp bu ñu ko defee ñu ñëw ba ñu war a tabb ay député yu war a matérialiser liggéey boobu député yu nga xam ne ñoom ñoo war a doon kuddu bi président de la république war a tibbee ngir mu bañ a lakk ngir mu mën a mottali ngir mu mën a matal ñu demee ba tollu ci député yooyu sunu yéene ci yéen ëpp na présenter list sunu yéene ci yéen ëpp na taxaw laaj leen ngeen boole ñu ci ndaw yooyu ndaxte 2022 fàtte xaju fii amoon nañu yéene dem assemblée nationale tabboon nañu list wuti parrainage waaye damay wax ne ba askan wi yépp ne leen ne ñoo dem leen ngeen fekk yeewi askan wi dem leen ngeen def benn say ngir ñu mën a jële fi président Macky Sall dañ ko def wàcc lépp suñu ambition personnelle teg ko ndax nag ñun mënuñoo am ambition bu dul jëriñ suñu askan loolu kese mooy suñu ambition am reconnaissance suñu askan loolu mooy suñu fay mooy suñu payoor ba ñu ngeen ñu waxee dem leen ngeen dem yeewi askan wi dañu ko def mbokk yi dañ ci am am ci mais ñu ànd ak yéen ci kóolute taxaw ba ngeen jox ñu li ngeen ñu jox xeebuñu ko nag waaye tey jii taxawaay bi ñu war a mën a taxawee te muy taxawaayu continuité muy mbokk yi naka la nit di xeexee ba fal président de la république mu metti lool tey nga wëlbatiku defi liste jàkkaarloo moom loolu de foog naa ku leen ko waxoon guddi sax war ngeen xam ni euh, jëmm jii di may mën a busu du ko def war ngeen xam ni ñi ñu àndal ci force citoyenne duñ ko def war ngeen xam ni képp ku nekk suñu mbokk wala suñu kóllëre dooñu ci dooñu ci puus parce que nag loolu wuyoowul ak suñuy valeur wuyoowul ak suñu ay ak suñu ay principe ndax dañu jàpp ne li gën a jafe jàll jàll na lii ci des étape la bu ñu war a mottale kon nag suñu taxawaay mooy nekk nekk ci wetu coalition bi nga xamante ne moom mooy egg au indi le président Bassirou Diomaye Faye amaana sax am na ñu koy woowee liste Pastef waaw list parti Pastef te foog naa justifier nañu lan moo war a mën a tax liste boobu tudd Pastef xamaguma ci nag lu bare ah xëy na fan yi dinañ ci leeral ba xam naka la liste boobu di tëddee waaye li ma ci mën a xam rek di leen ko wax mooy ngeen jàpp ni yéene ji ma amoon deux mille vingt deux ma sapp sama candidature même yéene ji laa amaat 2024 pour taxawal askanu Sénégal ci assemblée nationale yéene jooju dara wàññeeku ci te bu soobee yàlla fan yi di ñëw man ak ñi ma àndal suñuy candidature dinañ ko présenter ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñu ay alliés muy le parti Pastef ngir ñu mën a xool ndax dina mën a nekk jàppandi ñu ànd ak ñoom ci mottali yéene jooju bu nekkee xayrul mooy suñu yéene mooy suñu bëgg-bëgg parce que nag euh, dañ ko fi xeex daf fi yàgg depuis 2012 ba léegi euh, suñu yéene la euh, ñu autoproclamé wu ay député du peuple te nag man def ngeen ma seen député ba pare loolu rek doy na ma ndaxte lu toll ni ay millier de sénégalais di la laaj di la soxla di la taataan di la yéene jàmm gis naa li ngeen di bind dama koy gis bu ma ko gisul dañ ma koy jottali kon loolu foog naa satisfaction munu ko gën a kawe mais dinañu mottali suñu candidature à la suñu candidature à la candidature ah, mooy euh, déposer suñuy dossier ah fi nga xamante ne foofu la ko ñëpp di déposer ba xam lu ci lu ciy ruus waaye dama ni bu yembadee ñu ànd bokk yéene bi taxaw xeex samp bu bu mottul utam ñu ànd samp continuer di xeex ndax xam ngeen lu tax dañoo yàgg wone ni suñu ay jëmm taxuñu jóg dañoo yàgg wane ni suñu taxawaay muy toujours ñuy xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan toujours ñuy xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo nañ des ci ginnaaw ñi nga xamante ne ñoo bokkul ci ñun tey te fekkewuñ ñu xool ci image yu ñooñu xool ci honneur yu ñooñu xool ci mémoire yu ñooñu ba tax ñu te xool suñu doxalin bañ a changer benn yoon yoon bi nga xamante ne moom la ñu jëloon ba egg ko fii tey nag toll nañu ci ci pandaw gi ñëpp bëgg nañu doon député loolu amul solo au contraire dafay wone dynamique gu euh, euh, état d'esprit sénégalais yi dafay wone itam ni euh, taxawaay bu nawlu ñëpp dañoo bëgg bokk ci ñi nga xamante ne ñooy taxaw ci quinzième législature bi parce que nag am naa yàqi ni dina nekk législature bu am qualité am naa yàqii dina nekk législature boo xamante ne dinañ ci jël ay projet de jël ci ay décision yoo xamante ne dina jëmale Sénégal Sénégal kanam décision yoo xamante ne sénégalais yàgg nañ ko xaar 1960 ba léegi am naa yàqin ni quinzième législature bi dina motali loolu donc pour nit ñi di xëccoo pour nit ñi di xeex pour mun a jublu ci quinzième législature boobu mbokk yi dara bonu ci dara ñaaw ci itam dara ëpp ci itam na ku nekk xam ni rek bu matee yàlla la bu matul itam yàlla la parce que nag nit ku nekk doo dund lu dul sa wërsëg nit mënta am lu weesu luy wërsëgam yàlla nag moom mooy joxe mën na ko jaarale ci nit c'est normal parce que suñu borom bi du tëb joxe da koy jaarale ci ay doomu aadama waaye nañu jàpp ni bëgg-bëgg yooyu ñu bëgg warta mën na kawe suñu taxawaay pour Sénégal ndaxte nit mënta soppeeku saa su nekk ndax ay soxla dafa taxaw waaye nag dama leen di jox rek ñaar ba ñett yóbbal mooy kàddu yi may dégg souvent muy jóg nañu gën a yaatal suma ay dënn nañu xam ni tey ku won ginnaaw projet bii ñu ànd taxaw samp ko waroo Maimouna Bousso waroo le président de la république waroo Ousmane Sonko sénégalais nga ko def sénégalais yi nga jox ginnaaw sénégalais yi nga tourné parce que nag dangaa joxe loo xamante ne mooy moom moo nekk ci bunt bi li ci biir nga ne noonoo dama ci jël sama wàll kon kooku du ay xas muy suñu cër suñu diggante ak ku def loolu du ay xuloo muy suñu cër suñu diggante ak ku def loolu suñu cër mooy bàyyi ko ak sénégalais yi parce que defuñu ñu ko askan wi lañu ko def askan wi ñu doon rey askan wi ñu doon dóor askan wi ñu doon torturer askan woowu tey moom moo soxla jël majorité parlementaire askan boobu moom moo soxla am majorité ngir ay luwaawam ngir li nga xamante ne moo war jëm ci moom ci ay solution ñu mun ko teg mu mun cee jëfandikoo kon askan boobu ku jàpp ne tey dangaa war a xool sa ambition personnelle dangaa war a xool sa agenda personnel dangaa war a yow jiital sa bopp dangaa war a jiital yow sa tur dangaa war a yow jiital yow sa avenir wala sa carrière politique nga teg askan wi de côté boo wëlbatiku ci kan ngay dem ci askan wi ngay dem kon nañu gën a wóolu suñu askan nañu gën a wóolu suñu bopp nañu war xam ne suñu askan gënoon na fee gënoon na fee metti mu sonn lool yorul ñaar dërëm yorul xaalis yorul jàmm dóor yeeg kaso yi ñépp ne ci biir kaso bi président Macky Sall yor doole bu mës ta jox président de la république nervis yeeg gangster yi ñépp ci mbedd yi waaye askan wi dafa taxaw def benn say xam l'essentiel xam lan mooy soleil vote euh, utile jox ñu majorité ci premier tour mu nekk lu jafe kon le même peuple moom moo nekk fi devant nous nan leen jàkkaarloog askan wi wax ak moom nan leen bañ a xiiroo ak ñaayoo ci ku bëgg ak kuy wut ndaxte nag on est en démocratie nit ku nekk am na droit ak sañ-sañu bëgg nit ku nekk am na droit ak sañ-sañu wutali boppam nañu bàyyi képp ku bëgg a wuti nga dem wuti nañu tal ñun suñu bopp na nañu tal ñun suñu bopp parce que ñun mënuñu yor lu toll ni projet yor lu toll ni yéene ju toll noonu war a jàkkaarloog askan wi war a wër suba ba ngoon di xool lu waay def ak lu waay wax ak kan kana ànd ay waay ku mu neex àndal ku la neex ñun nañu ànd ak askan wi nañu ànd ak askan wi ñu joxoon majorité mois de mars bii passé askan wi ñu joxoon cinquante quatre pour cent askan wi nga xamante ne moom moo ne naa ci boromu alal doy naa ci boroomi diplôme doy la naa ci boroomu expérience doy naa ci ñu màndi politique waa projet bi ñoom lay jox euh, majorité damay tourner des virages trois cent soixante degrés ñi ngeen di wooyu cuune politique ñi amul expérience ci politique ñi mësta falu ñi mësta dégg ñooñu ñoom la ñuy jox majorité askan boobu mbokk yi gëm naa ni am nañu maturité bu toll ni duñ jox majorité président de la république wëlbatiku di ko xañ assemblée nationale te ñu xam ne bu jot assemblée nationale du liggéey te ñu xam ne ñu bare ñu jàkkaarloog président tey jàkkaarloog liste majoritaire jàkkaarloogu ñu ak moom ngir rek ay principe ak politique ne dañoo jàkkaarloog moom ngir tere ko liggéey dañoo jàkkaarloog moom ngir téye loxoom ngir ne ko doo fi defee doo fi dindee askanu Sénégal am na ñu maturité ba tax na loolu duñ ko nangu kon nañ leen delluwaat ci askan wi sama njabootu patriote yi nag ndaxte patriote dafa yaatu am na ñu tudd patriote bokk parti bi ñuy wax Pastef di suñuy allié wante am na ñu nekk ay patriote tamit te bokk ñu benn parti ci Sénégal lañu bokk mais dañoo bokk bëgg-bëgg ndax Sénégal lañu bokk sama mbokku patriote yi sama njabootu patriote yi nag c'est normal toujours dañuy nekk au front toujours dañuy bëgg euh, taxawal seen xalaat mais suñuy xalaat nañ ko def ci lu ñuy construire nañ ko def ci suñu ci suñu soxla parce que c'est pas le moment ñu perdre suñu temps ci wax ci ma Samba wax ci ma Demba loolu war nañ ko dépasé